mbokk yi ginnaaw biñ sante suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal alxalifatul am cheikh mouhamadul muntaka mi nga xam ne mooy toog toogaayu cheikhul xaddim yàlla na fi yàgg te wér ba àggali mboolem naal yi nga xam ne naalal na ko lislaam naalal ko réew mi naalal ko xam-xam waaye naanal ko maamam ya ko jiitu woon ak kilifaam ya ko jiitu mbokk yi waxtaan yi nga xam ne ñu ngi leen ko doon amal ànd ceeg compagnie alaaji sëriñ Seck di leen gunge ci weeru safar bi ànd ceeg borom xam-xam sëriñ Maxtaar Kebe moom Cheikh Saalihu Mbàkke di gëstukat tey nag ñu indi beneen thème bu bokkut ak yañ daan indi muy Cheikh Ahmadou Bamba wa tasaamu loolu mooy lan mooy sëriñ Touba ak tolerance sëriñ Touba nan la doon dundee tolérance ci biir ñi ko waroon nan la doon dundee tolerance moom ak ñi bokkul woon diine ndaxam xam ngeen ne génn gim génn moo ñoom ñoo nekkoon diirul lim nekk ci euh, tukki bi ñuy ay nooni lislaam yoo xam ne seen yitte yëpp mooy faagaagal lislaam teg ko ci suuf moom yitteem mooy yëkkati lislaam moom jëm ca kaw ci biir tasaamux jooju laataa ñu ci dugg dañuy ànd ak sëriñ maxtaar euh, nuyu ko comme ni ñu ko daan nuyoo laataa ñuy dugg ci waxtaan bi sëriñ maxtaar ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa sañ sëñ Omar maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di nuyu bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ba léegi mm-hmm. di rafetlu seeni taxawaay di leen sant te di leen gërëm leen wax na liggéeyub sëriñ bi la kenn ku nekk ak ak na nga ca mën a duggee bu ëllëgatee ak la nga cay am maa ngi nuyu alxalifatul am lil muridiya cheikh mahamadul muntaqa ak njabootuk sëriñ tubaa gépp waaye di nuyu C3S ka ca booba di alaaji sëriñ Seck ak sëñ Fallu ak sëñ Daam Touré di nuyu technicien bii di sëñ Moustapha Sarr mm-hmm. taxaw lool ci liggéey bi te macha allah rafetal lépp di jot li nuyoo sama xarit sama soppe sëriñ Njaay mi ma àndal xam naa mbokk yi kon incha allah ñu dugg ak yéen ci ni ko sëriñ Amar waxe maa ngi jot li ab nuyoo itam euh, sëñ Mbàkke Sourang mm-hmm. di nuyu waa yaatal mbindum alxuraan ñëpp bàyyiwuma kenn ci góor ak jigéen mag ak ndaw mm-hmm. jërëjëf sëriñ Maxtaar ci nuyoo bu am solo boobu ñu ngi nuyu waa yaatal mbindum alxuraan yëpp nag bàyyiwuñ mboolem ku bokk ci yaatal mbindum alxuraan rek ngay góor wala ngay jigéen ak foo mën a nekk mm-hmm. ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mm-hmm. sëriñ Maxtaar bu ñu doon dugg tey ci waxtaan wi laaj bi ñuy njëkk laaj mm-hmm. mooy tasaamux mooy lan d'abord ab lan mooy tasaamu ñu doog a dugg ci ci minute yu néew rek ñu doog a dugg nag ci sëriñ Tuubaa ak tasaamux ngir kii seetaan mën a am fenn fu mu tolérance nga ko tuddee ci tubaab mooy jéggle mbaa baale mbaa tabeel ci wolof a samx mooy ak ab tab tab nag léeg-léeg mu nga joxe ci sa alal ngiruk tabe mbaa nga joxe ci sa daraja ngiruk tabe mbaa nga fekk sa doole sax nga limiti ko ngir tabe bañ a toppante kon tasaamox min a samx saamix mooy ko xam ne dafay nangoo négocier day nangoo wàcc day nangoo dëmmooyu day nangoo noppi ci lu mu xam mooy taarif bi ci gën a gaaw mhm. mm. moo tax benn chaar adabi ne samahatu saawal bir bi jiitu sax xam naa boobu ab murit a ko waxoon <coughs> mhm. euh, waaye imrul xayse moo doon nettali kenn mu ne tabeg waaj yi ak mbaaxug waaj yi bu tàggoo ak sagoom ak bu tàggoo ak sagoom lépp la kon la da dañu wane rek waa ji ku tabe la mhm. kon samaaxa daal mooy nga mayee ci sa bopp loo xam ne boo ko xañoon nit mhm. sañu la caa forcé nga ci sa teyu bakkan nga may ko ko mhm. li ñu waxoon léegi rek mën naa dellu ci alal mën naa dellu ci lu bare bare bare jërëjëf sëriñ Makhtar ci leeral bu am solo boobu jëm ci jëmmi tolérance ci boppam muy baale muy jéggale muy tabale ni nga ko comme ni nga ko indee ci baat yu wute waaye lépp di firi lenn Serigne Touba nag di nitu yàlla mhm. liggéey lislaam lim ko liggéeyal mhm. lu tolloog juróom-ñaari at ak lu tegal ñu génn la ci sab dëkk mhm. génn la ci say mbokk tàqale la ak say doom mbooleem lu nit di bànneexoo ci àddina ñu tàqale la ak moom ci at yu yàgg bi lépp jeexee nga taxaw ñëpp yaakaar ne lu ne ngay def da ngay wu dal ci kaw tubaab bi nga ne afawtu anil aada ibturan loolu ana noo koy jàngatee sëñ Muxtaar jërëjëf sëriñ Tuuba nit ki bu fekkee yàllaa tax muy wax yàllaa tax muy def yàllaa tax muy jàpp yàllaa tax muy baax du sedd mbindeef dara ci boppam mhm. loolu la ko yàlla njëkk a defal mhm. muy yàllaa ko tax di wax yàllaa ko tax di def moo tax lu ko mbindeef defit day jàpp ne loola mbindeef ma sabab la ca waaye musabbibul asbaab muy ka sabab sabab ya moo jëf jëf ja loolu nag bu demoon ci tasawuf lu xóot la maa ngi koy wax rek temps bi dafa gàtt ne waaye diggante boobu diggante bu xóot la ci wàllu uh, tasawuf xam muy ak ak jéggaleem ak baaleem ginnaaw moom ñi ko séqal jàppul na ñoom la ko séqal mm-hmm. aji bind mbindeef yi la ko séqal mm-hmm. loolu moo waral li lañ ca amakus néew ñoom mu ne afawtu ankum jéggal naa leen ndax yéen seen yoon nekku ci loolu nag lu yaatu la léegi da ngay bëgg a dugg ci xissa waaye da gis ne guddaay yëpp xissa ba da lay may dootu boo ko tàmbalee du yegg waaye da nga naan Sëriñ Tuubaa bu fekkonte nitu neen la amul beneen cëslaay bu dul boppam waxuma la baale waaye lim dugg du ko jig mhm. lim dugg du ko jig ba muy tala baale bay bay tala baale mhm. ndax wax nañ ko fi def nañ ko fi wan nañ ko fi lu jar tension bi nit monte wala mu wàcc mhm. wala karjaagam am problème xolam am problème li tax mu mën a baale nag mooy ginnaaw affaire bi dawu ko marqué daaw ko touché lu moo lu mu da koy fekk moom même moom même dal ci kawam boo ko gisee da nga xanaa du kii la ñuy wax du déborder mukk du tàggoog sago mukk du xat mukk li muy def waxtu woom jotee ma ngi koy def du xool barab bi mu koy defee ak ban barab la du xool ñi mu koy séqal muy tubaab yi ñoom ñooy ñam bokk yi bokk na ki li tax mu mën a baale loolu su jàppoon ne mook tubaab yi képp la nag ah kon su boobaa benn mu jëflanteeg ñoom ba kenn ku nekk xam foo yem sa morom wala mu duma leen bañ ne mbëtt bañ xam fuñ koy yem wala mu def ci ñoom lenn na leen li ci des baal naa leen ko waaye gëm na ne moom digganteem ak tubaab yi tubaab yi ay wusapoo lañ intermédiaire sunu borom lañ sunu borom moo teg Sëriñ Tuubaa li mu ko teg te it jàppale na ko ci jàppale biir danañ ko wax bu ñu demee ci yoonu géej gi mhm. insha allah bi dafay bañ a dugg ci euh, thème bi muy jaxasoo mhm. kon looloo waral tubaab yooyu moom mhm. sequt ñoom lu dul baal naa leen ndax yéen daa mel la ma doon bëgg dangeen ngeen ma cee jàppale baa am ko bëggoon na maa wéet wéetal ngeen ma bëggoon na maa génn réew mi génnee ngeen ma ko bëggoon na maa nattu sama bopp ak sama boroom yéenay nattu bi ndax yéenay yéene ma teg li ma naqare kon nag bu jógee ba am li ma am yéen baal naa leen yéen ngeen dem seen yoon. Mhm. mbokk yi bu doon borom tension buy yéeg mbaa muy buy wàcc. Mhm. mbaa muy borom cardiaque kon dama ne la du egg ci liggéey yi sax. Mhm. ndax avant muy dem rek am na ay yu bari ay xoqtal yu bari ci ay tiital yoo xam ne sëriñ Tuubaa yëgalu ko woon yaramam noonu laa ko mën a tuddee. bismillaahi rahmaani rahiim. jërëjëf sëriñ Maxtaar ci leeral googu nga leeral sëriñ Tuubaa ak baale. ndax ki nga xam ne li muy def marqué wu ko ni ko tuddee. ko fenn. dafa jàpp ne rek tubaab bi dafa participer ci nattu yi mu bëggoon a teg boppam te mënu ko teg boppam. tubaab bi ñëw euh, bokk ci ñi ko ko teg ngir mu mën a am fayu boromam sababu xaybati an allah arada an anaala minhu jaaha yàlla nam ma am ci moom ab cër waan akuna shafian li qawmi waan akuna xaadiman fi daw mi loolu itam bokk ci sabab si nga xam ne sax moo waral bisam bii tey muy muy màggal gi sëriñ maxtaar jëmmi baale jëmmi baale ci sëriñ Touba. lan la ko jural jëmmi baale. muy tasaamu musaamaxa boobu muy tasaamu tolérance boobu. lan la jural Serigne Touba. jural na ko day jàngal ko ñi ko xamutoon jural na ko it yar ci ñoñam ndax yoonu gànnaaram wi bala maa ñëw ci yoonu gànnaar wi sax keroog ba gaa ñi ñëwee ne dañuy toj këram gi. bul fàtte ne am na ci buur yoo xam ne bi ñëwee au lieu que ñu jaar ci buntu kër ba seen jaas ji ñu yoroon lañuy ñuy dóor fi ñu tollool rek foofa daal ne lawet ñu jaar fa dugg mhm. bokk yi te pourtant biñ koy def ñoom ñoo ñu doon attaqué si sëñ Tuubaa ngi ci ginnaaw kër gi toog di jàng mhm. taalibe yi kenn ku nekk mu ne la ku toogoon bul jóg mhm. ndax boo jógee day miroon da ngay geer kenn ku nekk fa nga toog bul fa jóg ñu ñëw di firkase këram baddi fii jaar fii dawal dugg aw dugg wër ki bi ne ko yeey dangaa denc ay bal ak doom mooy da da ngaa am ay arme bu doon koy baalee xanaa moom même bu bu ko mënta fajit dana feeñ ci jëmmam mbaa mu feeñ ci ay waxam dëgg waaye daa fexe ba feeñul ci jëmmam ji ma ngay wéetali yàlla taalibeem yi ci biir kër géen mu fexe ba bañ ba mu bañ a feeñ ci seen jëmm yi kenn ku nekk mel ni ay tubaab duggul ci kër gi maanaam ay ay ay ceddo duggul ci kër gi ay yàqkat duggul ci kër gi ndax boobu baale kenn mësu koo dégg ci àdduna fenn benn li mu ko jural kon ñooñee képp ku fekkee woon loola mbaa ñi nettali la xissa ba nga dégg ko te dégg ko dégginu nag dégginu boromam xel dana la may bu ëllëgatee bu la nit tooñee boo koy baal yaa ngi koy delloo ji ca daaru mar naan joojee ku ñuy yàq sa kër am na ci façon xam ne dégg naa daa dugg borom war ba ca kaw di di ko kii maam Thierno ne ko da ngaa waroon a fexe ba laal ma nga xam ne maam Thierno booba mer na ba ne ko sa fas yi da war na fexe ba mu laal ma rek kon nga xam waaye ginnaaw sëñ bi xeexloowul kenn deflawul kenn leneen loolu moo waral kon taalibe ya maandu ca bokk na ci ak baaleem keroog ba muy dem ndar cent personnes la bàyyi mbàkke baari juróom benn téeméeri góor yàlla yoo xam ne kuñ téye doo rëcc kenn tuutiwu ca kenn feebaru ca kenn xol xosu ca te kenn ku ci nekk nàmp nga ci leeri sëriñ bi ba nga xam ne da ngay yéeg ci garab daanu ci suuf te du la wàññi dara mhm. fekk sat la guy wax ci ab taal ci kaw taal nga naan ko te du la wàññi dara mhm. ay xal nga dakk sa ca ba mu sedd guy te du la wàññi dara mhm. ba leen woon kaay la ñu ànd ndar ndax bu ñu demee ndar waa ndar danañ doy mu leen ma ci kenn topp waxin la noonu laa ko wax na ko keroog la yabal maam Cerno Ibra Faati mu mel ne gaynde ak baat yi day rek ne ñam yoroon ay jàmbaar la ñoo xam ne bu leen woowoon toolub xare musiba mën na am léegi nag 600 personnes juróom-benn téeméeri nit. di déglu kenn koo xam ne comme ci nag deel nga dee tey. ngay dem ne leen bu ma ci kenn topp. tolérance mën naa weesu loolu. demal sa bopp ca geer ba ñibbisil sa bopp ca geer ba sa waa kër baree bare nga xam ne daa mujjoon waa réew mi dañu doon fa bi nekk dañuy xàll ay yoon yu fa jëm. Mhm. ñii fétal ñii xam yoon wa ca ñenn ñi. ba sëñ bi nekkee ndar wala mu nekk ca euh, Mauritanie mm-hmm. dañoo mujjoon def ko lu mel ne ab visa nga xam ne bala ngaa dem daa am fooy jaar def ay formalité door a mën a am kayit wala mën a yóbbu sëriñ mm-hmm. loola lépp sëñ bi di ko tolore mm-hmm. ndax xam ne ñii lii ñuy jafeel dana mas a yomb bi gis sëriñ bi lañ ne bala nga caa dem dañ lay taaraar seetantal la palpe la nga dagg aw kayit bu leen neexee ñu bañ laa daggalu kayit la nga fay yóbbu ñu limité ko léegi ñu nangu ci loo xam ne naan lii mënut a dem ci sëriñ ba. lépp kon ku dul baale mënoo baale. sëñ eh, Omar. lu mel ne loolee. baale gi nag lim ko jural eh, ci ay doom laa koy njëkk a tàmbalee. Cheikh Salim Mbacke radiyallahu anhu dafa am ñaar ñu jote woon këram. war a ñëw ci sëñ bi nag sëñ bi am lu mu leen waroon a laaye biir. biñ tàmbalee wax ni ki jàng tam ki jàng xam-xam. taamal naan ko yemal xëyam suñu ne ko jërul sori yaag moo ma fa yem dañ leen di bokk dimbale. kon léegi nag tasaamox mënut a weesu lool. dëgg ko ne li ma lay sant daal mooy. Mhm. li ma leen di doyee yëf yi yem fi tey ngeen kenn ku nekk jox sa moroom loxo. Mhm. defe naa kon lawoon ci sëriñ ba ñëwaat na ci kooku nga xam ne xam nañ ko mooy Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu. ma ba séeréer sa ko. génne woon àdduna. ca somb. ah. Maba Jaxu ngay wax. waaw. Mhm. séeréeru siin. séeréeru siin yi. Mhm. dem nañ ba seenub xalifa wala seenub saltige. Mhm. ka ca séeréer ga. jébbalu na ci sëñ Saalihu Mbàkke en tariqi tasaamux ci anam ak maanaam tolérance Cheikh Abdou Khadir Mbàkke radiyallahu dafa làqu séeréer boobee tuubagut tudd Antoine Ngor maa ngi fàtte sant wa juuf mhm. ma juufun mhm. bi mu ñëwee nag moom daa ñëwoon rekk ci dëkk bi di xool ndax dégg na murid dañoo am aw xew mhm. yàlla dogal fi muy jaare ci buntu kër bi ñu ne ko kii kat moo fi wutu sañ Abdou Khadir mu jàdd di nuyu sañ Salim mu ko joxee loxo sëñ bi ne ko noo tudd mu ne ko Antoine Ngor Diouf sëñ bi ne ko foo jógee mu ne ko Chine Chine sëñ bi ne ko bay waxtaan wa soree sëñ bi ne ko dama laa bëgg dama bëgg ñu weccee aw tur ma tudd la sëñ Saaliwu waaye daal di xam li sëñ bi nam ne ko la loolu nag li nga ma ci may mooy danga may bàyyi ma delluwaat sama dëkk waxtaan ak sama waa kër feek ñetti fan danaa la ci tontu. waaye nag Mbàkke li nga bëgg ci man soo ko amee kat bëgg naa nga ñëw ba sama kër gane si ma sëñ bi ne ko suñ ca àggee te mënumaa ñëw ngir yaram weet danaa fa andi koo xam ne moo ma fay wóotu Antoine Ngor daal di dellu ba mu delloo daal di ñëwaat ci sëñ bi daal di tuub tudd Saaliwu Juuf kon la ma waxoon toog sëñ bi sëñ bi gis nga tolérance ni mu amee solo. ci lu wér ba mu tuubee ba noppi dana sëñ Saliou man mii maay njiital waa Siin. xepp sañ reye ma ba jëxu ku nekk saltigi bi yaa ko yor mu ne ne ko ma nga sama néeg ma denc. kon bu ëllëgatee bu yewoon xiyaam taxawee ma jaxu ña fa mujj tolloog Cheikh Saliou Mbacke ñu dekk ci wetu sëñ Saliou ma ma ba leen lii nag ñu ne ko kii moom dafa ñëwoon ñu wecceeg ñun aw tur ci lañ tuube allahu akbar defe naa tolérance. dëgg la moo indi loolu. moo indi loolu. dëgg tey jii boo demee ci seen dëkk ba li may wax danañ ci danañ ko dégg. Mhm. seen gàmm ga mas naa faa defee ab conférence. Mhm. boo fay jaay njëllal sañ Saliou du doy ñoom ñëpp ci guddi gi ak fu ñu mën a jógee njëll yi la ñuy takk. Mhm. ngir bëgg sëñ Saliou ngir bëgg sëñ te ñoom ñoo ñooñee nag ñoo kuutoo woon doon benn. daaneel Maba Fassin. kon defe naa tasaamu. moo indi loolu yëpp. ni nekk ci sëriñ bi. nii la ñëwee ci ak njabootam. Mhm. ba képp ku ñuy jëflanteel lañ lay njëkk a yéene. Mhm. mooy nga jariñu te li may wax yàlla nga koy seere. mas mhm. ma waxtaan ak sëñ Saali waxtaan wax ne la mu tàmbalee man mooy dama bëgg rekk day nga jariñu ci li ngay liggéey. kon dëgg dëgg cheikhul murabbi day nekk naasax. day nekk ab laabirikat ba noppi. te lim lay laabire mu yéene la ko. loolu nag walla ba nekk doomi sëriñ Tuubaa ju nekk. wala ba ne ci képp koo xam ne Sëriñ Tuubaa moom méngoo sab yar mhm. ba nga am ci moom la nga bëgg mhm. jërëjëf Sëriñ Maxtaar ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne jàngat nga ci Sëriñ Tuubaa ak ubbikoom ak yaatu dënnam ngir mën a jëflanteeg koo xam ne euh, amaana sax newul ci lislaam mhm. euh, misaal mi nga ci joxe rek misaal mu doy sëkk la mooy digganteem ak waa Siin xam nga ne ñiy jàmmaarloog bu buñ demee bay toog ak Serigne Saliou Mbacke mu la ñuy diggal ñuy def ci leen tere ñuy bàyyi day wane rek ne ubbi ko bu amul woon loolu yëpp du am gis nga mbaaxaan Diop bi muy ñëw Abdoul Gafour la ko tuddee ab Ablaye Diop xaar doomi Lat Joor bi mu ñëwee Abdoulahi la ko tuddee yaa ngi fàttali ko itam xisatu ba ni Najraan ah. ba ñu ñëwee Madina jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam samedi jot ñu bëgg a def seen mees mm-hmm. amuñ fu ñu ko defee yonent bi ne leen ndax nu awlaa bikum min Isa ñoo leen gën a yey ci Isa lu tax mënu leen defee seen wees sama jàkka ji loolu boo gisoon julli bu dugg ci kër église say kaala waaye yonent bi abalee na jàkkaam ñu def ci mees mm-hmm. dëgg la xam naa wax day andi wax mm-hmm. am na délégation suñ mbokki tiwaawoon yi mm-hmm. Cheikh Abdoul Aziz Sy mu mag ma radiallahu anhu moo jiite woon keroog euh, ngan ga bi ñëwee ci sëñ Saliou ba fajar jotee sëñ bi def ne wazifa leen ci seen leen ci sama biir néeg bi daal leen di lalal mbalaanam wasifa ñu wasifa ci moom Serigne Saliou moom Cheikh Saliou Mbacké macha allah macha allah loolu tasaamux mënu koo mënu koo passé mhm. alaaj Abdoulaye itam yàlla yàlla yokk leeram nit ku baax la muy mhm. war taxal lu bari la ci diggante boobu mhm. muy muy tasaamux boobu ku amoon ubbiku la euh, mbo ak ci ñëpp nag ci ñëpp nag rawatina ci diine ji yàlla yàlla yokk leeram te taas ñu ci seen barke Serigne Makhtar suñu beneen laaj mooy tasaamux buñ ko waxee ci ci ci njàngaleem Serigne Touba kii topp sëriñ bi nag gannaaw boo ñu waxee sëñ Tuubaa fi mu jaar ak tasaamu ak lim ci réalisé kii topp sëriñ bi dund ci environnement boo xam ne amaana ñam ko bokkal bokkut ak ñoom pas-pas ci sëriñ bi ay jullit lañ nag waaye bokkuñ ak bokkuñ ay naanukaay ci wàllu diine mën nañoo bokk ci beneen tariqa kooku ana lan moo ko war digganteem ak ñooñu bu fekkee ci école sëriñ Tuubaa lay lay lay naanee waaw sëriñ bi moom lim ci jàngale mooy fa kullu wirdin yuridul murida jooju ñëpp mën a jàng rek dëgg la eh, mooy loola mhm. nee na daal bu leen xeeb kenn ci gaa yu baaxe ya mhm. wird wu ngeen gis itam na ngeen xam la muy jariñ mhm. mooy daa tànqi ndox ma ca teen ba yët ko koy naan ca kër ga njëriñal werdu lool la dëgg la daal bu ngeen mës a dégg itam la ko sos téeréb yàlla la wal atharul musalsal ak ahadis nabawiya wala adaiya al mathura mooy ñaan yi nga xam ne jëlee nañ ko fu wér daal di kon bu leen ci xeeb kenn falaa taxqar falaa taxqar ahad nag moo lay xamal ne kon moom ñëpp la yemale waaw loolu infitaax dafay dafay feeñ te saabu dafay feeñ dafay feeñ ndax ndax mënoon naa réyal lim yor mm-hmm. wooye falal ñi lañ yor mm-hmm. waaye fexe na ba lépp rek def lu baax ok loolu ñu bëgg leerlu ci loolu nañ delluwaat ci masaalikul jinaan mm-hmm. moo xam arab bala wala ñu traduire leen ko en français daañu fekk sëñ Tuubaa ñëpp la yemale moo tax sëñ Moussa Ka nga naan mbindeef yi yëpp a yem fi moom mhm. alal yi yëpp a yem fi moom mhm. bëggul bañul du du xeeb di yéem mhm. moo gën a wute xarnu wallaay kon mbindeef yi yëpp a moom dëgg la alal yi yëpp a yem fi bañul du xeeb yéem moo gën a wute xarnu bi kon moom xam na ne te wax na ko ci beneen téere wanzur ila kulli xalqin xaqa man xalaqa kooku yóbbaale na fas wi sax bu ko dóor dóor yu ëpp bu ko yen yen bu ëpp. xoolal yërmande ki ko bind ci mbaam mi bu ko dóor dóor yu ëpp bu ko yen yen bu ëpp. Mm-hmm. ndox mi boo ci noppee naan bàyyi ko mu taa pour keneen ñam wi boo ci suuree joxal sa moroom mu xiif. ila axirihi wanzur ila kulli xalqin. Mm-hmm. xaqa man dëgg la. loolu rek moom moo yóbbaale lépp. dëgg la mm-hmm. jërëjëf sëriñ Makhtar ci leeral bu am solo boobu jëm ci tasaamux. sëriñ Touba ni nga ko waxee noonu ci am njàngaleem booy gëstu ci xasida yi da ngay gis ne euh, tasaa mu xam tax na mu accepté lu baree bare baree bëri mm-hmm. waaye jural na ko lu baree baree bëri mm-hmm. daana wax ne euh, la tëwoon euh, mag ña ba ñuy xeex ci jaas yi muy Cheikh Omar Foutiyu muy ba Jaxu Ba muy Ahmadou Cheikhou mm-hmm. muy Cheikh Mouhamadou Lamine ca Toubacouta muy Lat Joor Ngoone Latiir ah muy Samba Samba Lawbe Xureja Mbooj bi nga xam ne fi lañ ko rey ba ci Ndar Kàmb Samba Lawbe Njaay mi nekkoon amiru jolof mhm. ak lettre bu rëy bu ko sëriñ Tuubaa bind da ko mhm. fexeel ba ñi nga jiitee am na si ñoom yërmande mhm. ndax doole ji nga yor yàlla leen ko yàlla la ko jox te bisa nga ñëw dana ko jëlewaat yooyu yëpp rek day wane rek ne ku amoon infitaax la ci am njàngale mais ku amoon infitaax la ci sax si yaan mooy ci personnalité moom sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu jërëjëf sëriñ Maxtaar leeral yi am na solo trop jëm ci tasaamux euh, muy thème bi nga xam ne nag moom lañ mujjee traité ak yow ci safar yi ren muy juróomi juróom meelu Euh, thème ci yi nga xam ne traité nañ ko ak yow ci safar bi nga xam ne mooy 2023 ànd ceeg compagnie ji Sëriñ Seck ana yan kàddu nga ci yëkkati jëmale ko ci initiative bu rafet bi te jubluwuñ ci dara nag lu dul gën a tasaare njàngaleem Cheikhul Khadim amaana mi ngi tasaare amaana mi ngi tasaaroo ci àdduna bi waaye c gis ne war na ci mën a indi participation nit ñi gën a cee mën a jëriñu ndax Serigne Touba day patrimoine mondial. ok jërëjëf loolu ci wax Serigne Mokhtar. Euh, Serigne Omar liñ léegi. muy jéggale ak baale bañ a toppante taalibe bu ko dégg na xam ne loola ci sëriñam nekkoon liñ naan ida ajabatka xisaal amriin fakunhu yakun fiika maa yujibu soo gisee nit mu yéem la tàmbalil jaar ca doxinam wa balaa yàgg la woon ci moom da nga ci am dara dëgg la Cheikh Saliou Mbacké daana wax naan mel na sëriñ Tuubaa yombut waaye ki koy jéem a roy de dana ko tane ki ko jéemut a roy mm-hmm. kon bañ ne sëñ bi daana def nii nga fexe bay def noona mm-hmm. yow ma fexee def noona doonte mënoo matal na ko sëñ bi defeet mm-hmm. ki deful noona moom na ko tane la kon nag buñ tolloo ci jamono joo xam ne ju doy waar la nit dem na ba fàtte mooy kan li wax xaswa mooy al unf violence defe nañ ne mooy lépp ku ko sax dañu yaakaar ne bokkoo. wala am yembar nga. wala am yembar nga fekk demeewul nit dootul sàmmati ay kàddoom. Mhm. da ko da lay tooñ tooñaat ba nag boo boo waxee mu sànni loxo ya. te lay génne ci gémmiñ ga kenn du ko mën a dégg. wallaay dëgg la. Euh, président France bi ñu daan wax déggool Gaulle déedéet du de Gaulle ka ca kaw. Nicolas wala. Hmm? Nicolas. déedéet du Sarkozy. yooyu côté rek. du François Mitterrand. dé déedéet de de ah, côté de Gaulle ca ca de Gaulle sax la. Mhm. wala boog bu ko fàttalikoo dana ko andiwaat ci yeneen émission. Mhm. daf ne. Mhm. foo fekk kuy xëcc lam yor daa jotul. waaye ku jot la da ngay wokk. nga dëgg. daldi ne nit ku amul xam-xam soo waxee moom ci xam-xam. wax ju naqar la koy eggalee ndax amul aw lay mënu moom la mën a tontu. tontu dafa leewul ci xam-xam. moo tax day xëcc nag lu mu njëkk jot rek loolu lay ñoddi. moom lay mottali ko. nit ko amutub yar bu ngeen séqee la mu lay njëkk a wan mooy ñàkkub yar ndax du xam ne ab yar moo nit ki bu la wooyee ci biir da nga ko war a wuy ci biir déedéet moom day daal di jël ak ñàkki teggin andi yow li nga def na mën lu ci sa yoon li nga def da ko war a ne ko man li ma def nangam laa bu dee dëgg. te dëgg dëgg dee njuumte nga ne ko baal ma. Mhm. waaye sa yoon nekku ci kay kon xëcc yow yaa ngi xëcc mhm. ki nga xam ne daa amu yar nag daa jotle bu demoon ba juum sax ba wax mu ne ah sëñ maa ngi jéggalu mhm. nag ma jéggal kët njuumte la mhm. mën naa dem sax ba yëkkati hadiyaam jox la murid yu njëkkee ci lii lañ leen yar ginnaaw bi ñi fi yor ab yar tam baaxit bu ñu génnee ci daara yi leen yare noonu la ñuy yar ma noonu la ñuy yaroo noon la ñuy mel kon dafa bokk ci li nga xam ne des na ko jàng ci njàngalem sëriñ bi bépp melaw wu rafet wuñ ne la na la sëriñ Touba meloon ca la daan yare yow li la dese yow ndaw li nga xam ne yaa ngi ci sa génération bi nga nekkal nga feex ba loola ñëw ci yow bu ñëwee ci yow nag léegi mu toxoo ci yow dem ci keneen bu yàggee lépp daal di yaatu waaye jamono joo xam ne xonf violence wax ju bon maa tey mën loo ma dara sa yoon nekkul ci man juróoma jëndoo ma baat yooyu du baati taalibe même sax du waat du baatu ab citoyen boo xam ne rek ba nga nekk ab responsable. saa nga nekk taalibe ci saa nga nekk taalibe dëgg la nit. Mhm. nitam garabam. Mhm. te nit fas sax bu dawee ci fas lay dem. Mhm. xar bu la rëccee boo ko seetee ci géttu xar yi nga koy jàpp bëy li muy niroo niroo xar lu dem jaxasoo ji xar ca bëy ya lay dem mhm. kon nit war naa mën a jëm ci moroomum nitam mhm. te bu nit gisee moroomum nitam it war naa jëflanteeg moom ci ak nite mhm. al insaan wal ansanatu du benn nit ak humanité ñaar yëpp nag dafa war a daje ci nit su ko def mu nekk kaami mata kaamilul ajza muy ko équilibre waaye jamono juñ toll ñu bon ñi ci ñi ma ko sañu wax yàq nañ ñu baax ñi ba léegi ku dugg ci ay taax defe nga ne boo seddee bokkoo boo lewetee bokkoo soo baaxee bokkoo il faut que daal nga mel ni ku firiku ndax lan bëgg a bokk soppi say wax yu baaxoon nga soppi ko yu bon ngir bëgg a bokk soo yoree ab oto di dawal sa tëlee dawal da koy faje salaam yi mu ñaaw ba lu ñu la lay infraction da nga ne ko sa yoon nekku ci juróoma jënduma kon loolu nag buñ tàmbalee di jàngalee tasaamu mbaa ñu jàngale ak nite jële ko ci sëriñ tuubaa jubluwuñ ci lu dul jottali ko suñ mbokk yi nga xam ne ay bokki jullit lañ mbaa ñuy ay bokki taalibe mbaa ñuy ay bokki dëkkandoo bu ma ne dëkkandoo nag mën naa génne lislaam ndax islaam yonent bi saa salaam kenn yebal ko woon ne nañ ñëpp gëm waaye dañ ko yebal ne ko nañ ñëpp di nit nit googu nag moo sax ci nun ñii ak sunuy doom ak sunuy sët ba ilaa qiyaami saa nit day nite dëgg la sëriñ la koy mën a tax a nite nag mhm. mooy bàyyi yu bon ya mhm. dem ca yu baax ya bàyyi yu ñaaw ya dem ca yu rafet ya mhm. C3S tey bu taxawee di indi lu mel nii ci màggal dëgg ay itteem yépp ak cof ci poosam di ca def lam ci jublu mooy yaakaar naa résultant la bëgg ba laa déwén ay junni junni junni. Mhm. man cee defaroo. dëgg la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi looloy émission bi ñu leen amaloon jëm ci waxtaanee ku baax jëm ci waxtaanee ku tedd muy as cheikh Ahmadou Bamba. radiyallahu anhu ñu tënkoon ko ci nag Serigne tuubaa ak mën a jéggale Serigne Touba ak ubbikoom Serigne Touba ak yaatu dënnam muy cheikh Ahmadou Bamba watta sàmmo in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi rrahmani rrahim fastamsik billadi أوحي إليك إنك على صراط مستقيم